asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah mardi 5 mai 2020 ñoo ngi ci yëglekaay yi ñu doore ko tey sunu làmbati yëglekaay bi xëyati ñëwati ci diggante Boy Niang ak Balla gay numéro 2 mu mel ni ki nag ba Thierno Gueye waxee dafa kañ di wax daa mel ni ki nag Boubacar Niang daal moo xëy jël ak xalimaam moom ma nekk fa nga xam ne mooy ci suñu làmb daal moo xëy dafa jàngat ci ñoom ñaari mbëri wan ñu Balla wan ñu Boy Niang waaye nag dafa mel ni daal la moo xam ne daal nee na Boy Niang day tey ngaa tey ci mbojum Balla gay numéro 2 ndax nag boo laajee Modou Lo ak Tapha Tine day est-ce que doo tey ci waa ji nga xam ne moo di Balla Gaye mooy numéro 2 mu ne ko est ce sax nekkul koo xam ne koo war a moytu la loolu la daal Boubacar ñaa xëy tey samp ko mu di ab laaj maanaam daal kii di Boy Niang daal lay dànkaafu ne na ko mbaa gaynde gu blessé gi doo ko laal mu far la gaañ ndax daa jàpp ne day am na ñoo xam ne bañ fa jaare ak moom jàpp ne waa ji amatul entraînement wala dara nekkatu fa daal daa mel ni kër bañ ci jógee la ñu gis saf na sàpp ci ñoom moo xam Modou Lo la moo xam Tapha Tine la yëglikaay bi di suñu làmb xëy ñëw tey wax ñu lu mel ni ki noonu mu mel ni ki nag rakk Sa Thiès moom Boy Niang moom ma wax sànq ko daan ba mu ko daanee ba tey nag ba mu ca jógee année blanche la ca def ñu ne wa déet ne waay fi mu nekk nii combat xaw ko tëg tic maanaam daal ngir mu gis adversaire moom yëglikaay bi nag jafe na fi mu nekk nii kon daal ci galère gu méttee méttee métti ci la nekk moom Sa Thiès di rakki Balla Gaye 2 waaye saa nag jamono yooyu ñuy wax loola ca moom mu ngay dalal ña nga xam ne nii ñoo di ay soppem daal ak ay fansam di leen xamal laal loo xam ne daal mooy li am daal jàpp na ne moom jóg moom day amaat ci côté am loolu mooy ay waxi ka nga xam ne moo di Sa Thiès ba tey ci yëglikaay bi nga xam ne moo di sunu làmb ba tey ñeneen ñoo xam ne nii moom jógoon nañu di tàkk jërëx mu yëgri faas nekkoon ca kaw a kaw ak ay mbër yu mag a mag waaye daa mel nag fi mu nekk nii day seeni mbir moom wàcc ba ca suufa suuf la def tàkk daal defatu ko maanaam daal bërxet bërxet moom gisatee su ko xaar moo fa gën a bari yëglikaay baa xëy ñëw wax nu ko moom sunu làmb wan ñu Gris Bordeaux tête de file ba Forza ak ka nga xam ne nii moo di lagros yëglikaay bi ñëw na ci écrit booba keneen koo xam ne moom tamit tàkkoon na jërëx waaye fi mu nekk nii day ay affaire am ba ko Ama Baldé daanee ba tey dafa taxaw tem bëreetul muy maalik ñang yëglikaay bi xëy sampab laaj nag di laaj moom Malick Niang mii nag lu xew lu ko dal wala boog lu dal mbër yi ba ñu koy daw moo xam rëg-rëg la wala garga mboosa koo ci wax waxi Malick Niang mu wane ginnaaw mu ne lu xew sunu làmb xëy laaj ko du samay wax wax keneen koo xam ne moom ñëw na ci ay mbër yoo xam ne dañoo génnoon dem ne dañoo dugg ci MMA bi moo xam guy gi la moo xam Abdou Diouf la wala ma Mandione muy coach su jamoon nag moo xëy di wax ci ñoom ne na daal li am ba des moom jàpp na ne ñoom day war nañoo mën li nga xam ne nii day moo di MMA coach su nag moo xëy tey ci yëglikaay bi di sunu làmb wax fa lu mel ni kii noonu ba tey bu ñuy desee ci sunu làmb beneen xale boo xam ne ni moom làmb la wala boog mu di espoir ñu naan ko Ndiaga Diop fils de Pape Diop Boston moom daal la mu bëgg wax na ko ne na ñu mu bëgg a jàmmaarloo daal mooy caatu yoof wala général Malick nee ñaari mbër yi daal ñooy ñi nga xam ne nii ñoo ko teree nelaw ba yandoor loolu mooy axi xale ba ci yëglikaay ba nga xam ne moo di sunu làmb dañ fay jógee nag moom dem record dem ci ñoo xam ne ay magam la ñu moom xale boobu dëkk Pikine muy Ama Balde ak Boy Niang doomi Dégol ak doomi Fallaay mu mel ni ki nag record daal lam ñu la ñu dugg ci làmb ku ci nekk ci ñoom ñaar yaa ngi ak say 13 ba ca tamit ku ci ne boo xoolee daje nga ak benn VIP yëgle kaay baa xëy ñëw wax nu ko mu mel ni ki nag jamono jooju loolu amee moom Boy Niang amaat VIP xëy na amagu ko donte ñu ngay wax digganteem ak Balla waaye Ama moom jamono jooja am na VIP ba gën a mag wala boog bu mag a mag muy Kayor Roi ba muy Modou Lo waaye nag seenum soos moom bu amee ku cëq xëpp suuf wala ñu ko jaxase te ba ñuy door a jóg wala ba ñu jógee bay avancé mooy sos ak ki nga xam ne nii moo di guy gi ku ci nekk ñaari mbër yii di Ama ak booy Niang am na fu ñooñu jaar ak yow record a xëy ñëw wax nu lu mel ni ki noonu keneen koo xam ne nii moom adversaire amagu ko muy rëg-rëg waaye ñëw nañ nag ci moom laaj ko tey nu muy dunde daal confinement bi ak koor gi maanaam tëdd huit heures yeewu six rëg-rëg daal nee na ay lekkam moom nee na mbirum ceebu jën bi moom nee daal da koy xaw di moytu de loolu mooy waxi ki nga xam ne nii moo di Omar Kane rëg-rëg ba tey record ñëw na ci wàlli làmbi simple ji ñu caaka fay borom set final yi gaa maanaam juróom-ñaari final la am moom caaka gañ a ñeent ya daal di perte la ca des wala boog moom caaka daal réussite boo ko xoolee kon toll na ci 63 pour cent de loolu la càkk fay def ci li nga xam ne ni moom la ñu doxal fi mu nekk nii ci làmb ji record a xëy ñëw wax lu mel ni ki noonu bu ñu demee fa nga xam ne nag moo di ca Leewtoo TV moom super jamono lañ fay fekk man nekkoon écrit ak énergie te léegi muy dund beneen dund ca Italie super nag wax na fa lu baree bari ci écrim ak ka nga xam ne nii moo fa nekk tey roi di Modou Lo jàpp na ne li mu am moom fullaam faydaam ak ay mbokkam jàppale ko moo ko ko may ak itam mu xam li mu bëgg loolu mooy waxi super jamono waaye tamit yemu ci nee na ko nag Modou bëgg na mu gestu xale écrit ba jàppale leen ndax jàpp na ne ni Modou Lo war na faa juddu ay yeneen super jamono ay yeneen baypal mooy ay waxam waaye tamit mu ngay wax ca digganteem ak Ama jàpp na ne Modou moo ëpp qualité waaye nag day nee na Ama na Modou tey ci moom ndax nee na am na sañ-sañ gaaw na te itam ragalul la muy def loola mu nga ci Leewtoo TV super jamono moo xëy wax ko fa waaye ñun nag li ñuy wax wala ki nuy wax ak gaawaayam mooy coronavirus bii di xuus di dem te ne tu taxaw ñuy ñaan yàlla yàlla na ko yàlla mi mën a téye poñe ko téye ko sànni ko waaye yàgg mar man li may laaj est-ce que corona bi nga yaakaar nag du ñu jéem ko accepter dund ak moom dem liggéey liggéeyi te nag xool na ñuy moytoo def li nu yi di wax parce que nag gan gu gane si ne tépp téppaaral ñibbiwul fayul puusul demul fenn toog des na wut ci moom solution yàgg maar waaye loo ci mën a dégg itam bu la neexee wala bu ma neexee wala yi ñuy seetaan ne leen médecin Sénégal yi jaaraama jërë ngeen jëf rawatina ministère de la santé ak Abdoulaye Diouf Sarr liggéey bi tuute benn. asalaamaaleykum mbokk ñi siiw ci Leewtoo TV Babacar ngeen loon ci revue de presse bi. Babacar ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay biram ah di nuyu internet Leewtoo TV yëpp fu ñu mën a nekk à travers le monde rek ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen ñaanal jàmm te di ko saxu si ñoom. Babacar dañuy njëkkee coronavirus mu mel ni tey moom juróom fukki nit ak juróom wér na. waaw juróom fukk ak euh, juróom wala juróom fukk ak ñeent. loo ci mën a dégg daal li wér ëpp na juróom fukk tey muy loo xam ne tamit lu am am solo la moo tax daal ñu ngi jaajëfal suñu médecin encore une fois am na loo xam ne tamit maanaam euh, maanaam boo xoolee presque cinquante personnes wala cinquante quatre personnes tamit ñooy nekk cas yoo xam ne positif la yaa ngi dégg boo xoolee Guédiawaye am na benn kaa euh, boo xam ne kaa communautaire la Médina am na parcelle am na ak tuuba yaa ngi dégg li ci des nag mooy daal ñaan yàlla mbir mi jóge fi aussitôt tamit ñu gën fagaru rek def li ñu médecins yi di wax mais comme li wax sànq bi ak moom maanaam xool ni ñuy defee ndigalu médecins yi ak ñiy yore wàllu santé bi maanaam delluwaat ci suñu activité tamit liggéey parce que nag am na loo xam ne nii moom euh, day maanaam day metti day ëpp daal te it nag yàlla moo ko yebal ci ñun nañ ko accepter ba pare di moytu ñi wéradi ñu mu jàppaleen ñu ñaan yàlla ñu jóg ñi ci loru yàlla yërëm leen xar leen aljana ñun ñi nga xam ne dalaguñu yàlla bu mu yegsi ci ñun yaa ngi dégg te yàlla jëlee ko fii mais tamit ñu def li ñu médecins yi di wax encore une fois médecins yi ñoom ñoo ame compétence boobu nañu nangu déglu si li ñu digal ñu di ko def jërëjëf Babacar loolu am na solo yàlla na dem ak jàmm rek ba ñëw jàmm ñu ñëw ci sunu lam sunu lam dafa xëy ñun wax ci diggante Boy Niang 2 ak ki nga xam ne mooy Balla Gaye 2 daal moom ndax Balla Gaye Boy Niang war na ko ragal wala waaw ndax war na koo ragal wala déet waaw waaw est-ce que ndax waaw est-ce que war na koo ragal waaw loolu moom question la wala mu ne bokk war na koo est-ce que du ko moytu loo ci mën a dégg daal xam naa ne euh, ñoom ñaar coow li fi mu nekk nii bëri na chaque jour ñu wax ci chaque jour ñu wax ci li am solo nag mooy lamb moom mënta passé lamb yaa ngi dégg la ma waxoon démb nag ma lay xaar tey rek combat boobu moom ak amam ci Balla Gaye lay dépendre pour mu gaaw parce que tamit des fois dafa am lu mu rawee Boy Niang ci lamb loo xam ne nii ñëpp teg nañ ci seen bët Boy Niang nag dugg na géej waaye daan fa dugg lu bëri yàlla def bi mu fa mujjee dugg moom defet la fa jëlee yaa ngi dégg am na ñoo xam ne sax ci ñu jege Balla Gaye wala ay supporteram waxu combat boobu ñoom xa ñoom Balla bu leen noonu day jël combat dañu ko daan doo ko jël parce que ñoom jàpp ne Boy Niang deful tey ci làmb lu war a tax mu bëri ak Balla Gaye waaye nag lamb moom des fois mbër mi man nag am lu tax mu nangoo jël combat am na luy tax ne mën du ko jël mais daal loo ci mën a dégg mu ngi noonu daal waaw dëgg la Babacar ñu ñëw ci coach Jabon Jabon kat moom dafa wax ne dafa mel daal mbër yu bëri ci Sénégal war nañu mën dem pratiquer lii di MMA. waaw loolu la wax de par rapport ak guy gi ci dégg Abdou Diouf ak Baye Mandione mën a jàpp ne ne ñooñu war nañu mën a dem pratiquer MMA ak yeneen mbër ah waaw moom tamit euh, sportif de haut niveau la di nekk entraîneur coach Jabon mu koy nuyu di ko ziar sama xarit la yaakaar naa su waxee loolu am na mu ko teg parce que MMA moom yaakaar naa ne li ngay daj ci entraînement làmb boo ko dajee ci MMA ci entraînement xalaat naa ne a bokk def ci ay résultats positifs daal am na solo yéegalkaay bii di suñu lam tam ñëw ñun ba léegi ci Malick Niang Malick dafa mel ni moom depuis bi nga xam ne bëri na ak ñoom mooy Ama Baldé daa mel ni daal amatul combat waaw waaw gars yi daal daa mel koy lan la ñuy daw ci moom loolu la yéegalkaay bi laaj muy moo xam rëg-rëg la wax wala garga Malick Niang nag mbër la dama naan mbër la ni mbër yëpp champion la am na lu mu def ci làmb parce que benn defet la am ko yóbbee mooy Ama Baldé ani Ama Baldé tey muy bëri roi kon Malick Niang mbër la xëy na nag lenn ko téye mooy ba mu daanoo ba tey ay at la takkaatul ngeen bu bëri ci diggante bi nag lu bëri changé na fi parce que am na ñoo xam ne bëri nañ fi parce que jamono yi ko di daan boobu Reug ni mu mel tey yaa ngi ak yeneen xale yoo xam ne amaat nañ fi mais diir bi mu toog nag bëriwul loolu moo tax yeneen xale yi génnaat fi ba sax tey mu demee nii parce que làmb tamit boo bëree moom mbër nga waaye boo toggee bëree too rek dañ naan nekkatoo mbër te ay at boo ko toggee day am lu bëree bëri lu muy téye ci sa carrière waaye daal war na mën a am komba bëree waaw loolu war a am balaa mu perte repère yi ndax bu duggee ci biir moom tàmm géew gi daal am na ci solo Babacar ñëw ci écurie dafa mel ni yëglikaay bi daal dafa wax ak ñun ci écurie Fass bu baax a baax ak tudd Gris boot ak Lac Rose ak nga xam ne moom mooy Forza mi nga xam ne dafa mel ni gars dañ koy daw waaw lu maanaam écurie la boo xam ne daal ni mu doon tàkkee daa mel ni loola dafa wàññeeku waaw loolu moom wax dëgg yàlla ah boo xoolee constat boo ko defee par rapport ak mbër yooyu nga doon dégg muy Forza muy Gris Bordeaux muy Lac Rose ak yeneen mbër yoo xam ne nekkoon nañ fa daan bëree boo xoolee euh, xaw na kii parce que ku mel ni Lac moom ku ne xam na li ko téye mooy blessure Gris Bordeaux combat bu mujj moog Balla Gaye di da ko ñàkk yaa ngi dégg muy loo xam ne ni lu ci par avertissement la ko ñàkkee Forza nag ci ndam la mujjee xëy na dafa gëj a bëree yaakaar naa bi muy mujj a bëree la mujj a bëreel ca Diourbel daan ko waa Leewtoo bi ñoo ko tëggoon kon yaakaar naa tamit daal écrit la boo xam ne ni nag comme li ma wax rek mérite bi ñu am mooy yàgg bi ñu fi yàgg maasoon ak écrit mais ba tey ñu ngi protéger écrit bi di ko sàmm ba muy produire ay mbër loolu nag mooy sport des fois day def nii ci kaw des fois mu wàcc ci suuf waaw. dafay mel ni kon dans le si lañ koy tuddee diggante booy Niang 2 ak nga xam moom mooy Ama Baldé mu mel ni dañoo commencé ndoo mel ni sax dañoo dañoo yemoo daal loolu la record yi kay wax. comme ay seex ñoom ñaar ci làmba ñaari mbëru Pikine yooyu mu ne jàpp ne ñoom ñaar benn destin bi ñoo ko bokk boo xoolee ku 2008 la ñëw ci làmb 13 victoire ku nekk am ko ci ñoom ñaar boo xoolee seen ay défaite tamit parce que xam naa ne warul soree. muy tam yemoo ay mbir. waaw loolu moo am parce que 2008 lañ ñëw si làmb ñoom ñaar ku ci nekk boo xoolee te yaa ngi ci 13 victoire ak tamit suma jumulee deux défaites. yaa ngi dégg kon defe naa ñoom ñaar buñ ne ñoo bokk benn destin bi day nuru dëgg bokk benn gox. parce que maase ñoo maase sax si làmba waaw muy ñaari xale yoo xam ne tamit wax dëgg yàlla tey dama naan am nañ mérite ñi leen encadré tamit am nañ mérite parce que li tax mooy am na ñuy débuté loolu seen ay carrière ñu doon leen xaar ñoom fi ñu si tey mais ñoom nag yàlla dimbali na leen ba ne nii yegg si nañu fi ñu leen doon xaare tey parce que a xew euh, dugg nañ ci biir mag ñi muy Boy Niang muy Ama Baldé ndax dugg ci biir mag ñi mënta passé ci Boy Niang bëre ak Lac de Guiers donte dafa ñàkk combat ba dugg ci biir mag ñi mënta passé bëre ak Tapha Tine daan ko muy Ama Baldé tey ngay bëre ak roi des arènes kon kooka moom waxatuñ dugg na wala duggul mu nga ca biir sa mbax muy ñaari ñoo xam ne nag vraiment ay mbër lañu waada ay mbër waada lañu am na seen ay morom yoo xam ne ñoom ma seen doog ñoom carré ñu doon doon xaar tey fi ñu yegsi mais yàlla def na ñoom yegg siwuñu xaw nañu am retard mel ni ay ñoom lagrus ak yeneen ay ak yeneen ak ñoo xam ne nii ba tey Sa sax ci la bokk donte moom defetu booy Niang moo ko xaw a taxawloo tuuti yaa ngi dégg ak ay ñoom Garga Mbossé ñoom ay ay génération lañ mais ñoom ñaar ñi nag wax dëgg yàlla dañoo ci xaw génn génn bu doy doy waar boo xam ne nii daal kon defe naa Pikine tey ah euh, Eumeu Sène hmm, ak ñoom bàcc ñu koy ziar bàcc di ñaan yàlla yàlla wéral cër yi mu jógaat ak jàmm ak mbër yi fa nekk yëpp ñoom tonnerre ak ñoom ñëpp defe naa tey bu ñu gestoo gis booy Niang ak Ama dañ xam ne am ñu relief bu dëgër ci seen ginnaaw parce que ñaar ñi moom ku leen am ci gox ci làmb tey defe naa ne ah boo amul lépp itam am nga lu bare bari ci làmb dëgg la boobu rawat na ñu doon ay seex euh, ki ñu ñëw ci record yëg rek ba léegi mu waxtaan ak Reug Reug ci ni muy euh, doxalee koor gi mm, waaw Reug day na mu ne dafa daa ne day moytu ceeb bi man nag loolu xam na maa jaaxal ci rëg-rëg waaw rëg léegi comme da ngay moytu ceebu jën bi yooyu looy lekk wala dañ lay defaral ay jën rek kéel la comme lébu la ci taatu géej gi la dëkk waaw kon xam naa du ñàkk ñu defaral ko ay jën ak yooyu rek comme ci beneen façon maanaam fii rek yu mel ni kii doon waaw parce que koor gi moom ku nekk ak ni nga koy dunde moom noonu la dikkee muy mbër am tamit waaw mbër mu mag a mag la mu rëg rek ñu koy nuyu di ko ziar ñu nuyu waale waa Thiaré yëpp suñu Pape Max Margan ñu ngi koy nuyu bu baax waaye itam record yëg kay wax ñun ci càkk fay ci lutte simple ba waaw par rapport ak taxawaay bi am man taxawaay bi xaw na baax waa caaka parce que tamit réussite yi moo ëpp presque boole 63 pour cent de réussite kon mu ngi wane na boppam moom caaka waaw mbër bu constant la daal par rapport ak ni mu taxawee muy mbër moo xam nga kan mooy caaka fay loolu nag defe naa liggéey koy maye tey defe naa mu ngi ci yoon woowu moom caaka hmm. ñu koy félicité bu baax ci résultat am boobu baaxkat ñëw ci Leewtoo TV mel ni cyber jamono daal mu ngi ca kaw waaye nag wax Leewtoo TV ci lu bëri ci micro Babacar waaw ñu koy nuyu ko ziar super jamono depuis Italie di nuyu tamit champion yi nga xam ne tey ñu ngi nekk à l'étranger fu ñu mën a ne ci àddina bi nag fu ne parce que tey boo dem ci àddina parce que doomu Sénégal yi nga fa te parce que dëkk yu ci bëri mbëri yaa nga fa moom nag mu wax ak ñun que ci carrière li ko ci xaw a naqari defet bi moom ci Yékini Junior ñëw na ci Modou Lo ñëw na ci combat ama ak Modou Lo ñëw na ci Gris Rock énergie waaw mais wax ji tamit wax dëgg yàlla da ngay dégg wax ji nga xam ne ah kii wax waxam tegu ko ci waxu wax lu ko neex wala nangam quoi teg na yoo xam ci yoon muy waxtaan woo ne mu nga ca Leewtoo TV ku fa dem dem gis vidéo bi mu koy nuyu di ko jaar depuis ca Italie super jamono ay xam nga ñoom dumbul ay fëgala mbër yooyu nekk à l'étranger liiru jàmm ñoom ñëpp ah, su ma limee dinaa juum fëgala de ku ci nekk euh, yaa ngi à l'étranger ñoom ñëpp maa ngi di nuyu di leen di leen ñaanal di wax ne que euh, ñun ak ñoom ñoo bokk ndey ak baay daal waaw. waaw dëgg la kër noonu lañu di taggatoo di nuyu mbool mi ñuy suivre ci Leewtoo TV rawatina ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk à l'extérieur vraiment muy waa Italie waa France ñi ne bu wax El Capo Xaadim ñu ngi koy nuyu bu baax. waaye itam nuyu siga bu tafaatin ñoom maam jaar bu ngel jon vraiment xale yooyu ñoom boy kiren ñoom ñëpp ñoom adsaat gars yëpp daal nuyu nañ leen Badou le phénomène bu mus na duñ ko fàtte nga xam ne moom sunu lépp la ah, xale la xale bu yaru vraiment ñu ngi nuyu mboolem ñi suivre Leewtoo TV waaye tam équipe bi ñu ngi koy nuyu yàgg maar encore une fois taalibe Cheikh Béthio Thioune ñu ngi koy ñaanal bu baax baax waaye ñaanal Fall ak DG mboolem ñu suivre waaw di nuyu ñëpp di nuyu ñëpp di nuyuwaat ki nga xam ne ni tamit moom mooy Ndeye Coumba Fall waaw di ko ñaanal jàmm di ko ñaanal yàlla wér waaw di ko wax ne yàlla na yàlla wéral cëriñ bu baax a baax di ko nuyu di nuyu yaay mère Sow ak doom Mohamed Diouf di nuyu tamit ay sa Faye ak équipe bu Leewtoo ñoom Aïda Diouf taalibi sëñ Babacar si maa ngi koy nuyu tonton Diaw tamit mention spéciale taxawaay bi rafet na maa ngi koy nuyu bu baax a baax a baax di nuyu DC di nuyu képp ku fi ne ñoom Cédric Diédhiou ku fi ne rek Modou man tamit namm nañ la di la nuyu bu baax a baax di nuyu internet Leewtoo TV fu ñu mën a nekk rek waaye du ma tàyyi di ko wax du ma dañ di ko wax Modou Modou yi encore une fois di leen ziar di leen ñaanal jàmm di leen xam nga di leen béggee bu baax a baax a baax di nuyu sama xarit sama doom ndey Saliou Khoule Youssou Ndoye tamit maa ngi koy nuyu bu baax a baax di nuyu yaayam sama yaay muy mère Penda Diawar maa ngi koy nuyu ak Mami Ndoye képp koo xam ne yaa ngi ñu suivre Saliou Ciss l'international sama rakk sama xarit moom tamit maa ngi koy nuyu ak papaam Demba Ciss di nuyu waa xol ba yépp parce que ñoom foofu lañ dëkk wax di nuyu kull kuy saafeen di nuyu séeréer sépp njaago yi joolaa yi mankaañ yi pël yi képp kuy doomu Sénégal daal foo mën a ne rek Babacar a lay ñaanal jàmm di ko sàqu si yow di ñaan yàlla koor gi yàlla nañ ko yàlla nangul barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te dàqal ñu corona bi encore une fois di ñaanal suñu kilifa diine yàlla leen fi yàlla yàggal te leen xalifa yépp nag laa wax bàyyiwuma kenn xalifa yépp même ña ca jàngu ba sax yàlla nañu wér yàlla nañu fi yàgg yàlla na ñaan nangu ndax corona bi dem barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam biiram amin ñu ngi leen dox jox dig daje suba ak jàmm allah jërë ngeen jëf